seen revue de presse. ak El Hadji Ahmed Aïdara coucou revoilà Karim Wade oh tribune yéene kay ne Karim Wade du ko yegg si ne démb ci guddi de ah maa la ko wax ñi nga xam ne nag ñoo ko gàttandu daal moo ñi nekk ci njabootu parti démocratique sénégalais Doudou Wade ma nga woon ca gàttandu ga Awa Diop ma nga woon ca gàttandu ga Bara Gaye ma nga woon ca gàttandu ga Sayer Gaye ma nga woon ca gàttandu ga Bassir Diawara ma nga woon ca gàttandu ga Mayoro Faye ma nga woon ca gàttandu ga Mamadou Massali ma Talla Diouf ma nga woon ca Gatanduga la ko tijjee yéene ne Karim day ba muy dikk daa dikk ak avocat Rasek Bourgi ah Karim Wade ci le pays au quotidien ne saay buñ ma wooyee danaa kon wuy si maa la wax lii laas ne la koy yoot moom Karim Wade en tout cas danañu ko déglu tey jile dee waaye ñu bëree bëri nag kon la ñu yaakaar amul dee déedéet Karim Wade gendarmerie duñ ko téye foofee dee déedéet buñ ko dégloo ba nuppi nag kon dana ñibbi i maa tuuma yëpp dana leen jox kon ab weeru yàlla ngir ñu indi kon ay jindi ci alal ji nga xam ne yor nañ ko nelew na laas ne ginnaaw bañ ko dégloo ba nuppi nag dossier boobee danañu ko jébbal kon procureur spécial Alioune Ndao ah waaw waaw Karim Wade moom boppam la cay nag ma ngi dépendant ci moom kon xibaar yi nga xam ne maanaam kon dina ko joxe Le Soleil yéene kay ne danañu ko déglu tey de Tribune yéene kay ne waaye Karim Wade tey la bàyyam santaane defu ko i maa la ko wax Abdoulaye Wade daa ci kilifay PDS yi ne leen kon gendarmerie yoo yee section recherche bu Colobane réew mi quotidien ne day foo sànni màtt mu takk termine yéene kaay ne daal dëggal na ni barki boo njaay ne dana tontu kon ci question yi ñu koy laaj yëpp te man Karim li ma ni mooy wàllum cuune goo xam ne kon dugal nañ ko ci coow li parce que procureur spécial la mu xam le mooy junni ci ay milliards la sàcc i junni ci milliards nga xam ne Sénégal kon moom lay dunde ci a def mooy respecté kon ni ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo ci Podor googee ne indiwaat fi alal ji nga xam ne kon daa lewul ci biir réew mi farata la loolu am cetal la sax am setal la tribunal bii nga xam ne daal teg nañ ko fi ngir muy saytu alal ju lewul ji bëggu-bëggu askan wi kese lay def te askan woowee moo yëkkati daal ay daan lal ko ci ndoddug ñi nga xam ne kon ñoom ñoo fi nekkoon yow ab nguur goo xam ne ci ay tojaange yorin goo xam ne gu sellul la def ko seen moomeelu bopp yàq deru réew mi complètement Moussa Touré nekkoon fi ministre économie ak finance ci laas yéene kaay Sall daal mook Abdoulaye Wade mburu foofu la Ablaye doon def dong lay def Macky fee duy wadd sans wadd wadd fi newul rek waaye la wadd doon def yëpp la Macky Sall mi la di def déet waaye Moussa ah kay parce que yow juróom-ñeenti agence yi mu dindi ci daanaka kon téeméer ci ay agence dëbb li ngaa la naxaate la tuur nit ñi lëndëm kese la yow gouvernement wu Macky Sall bii bi muy ñëw fekkoon nañu defar fi kon ay dossier ba pare la leen waroon mooy dikk rek jël ñooñee kon ñu ca tudd ne leen ciix yóbbu leen foofee nga xam ne ñëpp xam nañu ko Moussa Touré yemu ca ndaxte nee na yow ñeen ay conseiller nga xam ne rang de la ñu am di ndaataata lax abondance ay chargé de mission ci jamonoy Abdoulaye Wade koo gee yow booy xool ba ci biir ñii ni ñu jógtee nii léegi ñu dab ñooñu de maarte taali maa la wax lii bennoo bokk yaakaar gii daa amatul benn sens su samay kaddu de Moussa Touré mooy wax ay kaddu yu ndaw yi nekk ci M23 ci tribune yéene kaay na alal ji nga xam ne dañ ne kon xaw ma daa dañ koo war a kon indeeg loolu lee enrichissement illicite waaw nee ñu ma ne liggéey boobu jarul wàllum xaxarante ay nit règlement de compte di fay wante non non li ñuy naqarlu daal ñin yi nekk ci M23 gii mooy yi nga xam ne kon yëkkati na ko Abdourahmane Sow ak ndaw M23 yooyee nakarlu nañu bu baax a baax procureur spécial Aliou Ndao dem bi nga xam ne kon dem na ko ca Touba gee di indi kon ay gindi ak a expliqué lii moo tax kon ñu woo responsable nguur gi fi nekkoon ñeeng ñeeng ñeeng patiti patata la ñuy fàttali Aliou ndaw daal mooy keroog ba muy sol robam bee daa taxawoon ci kanamu kon suñu borom ak kanamu askan wi daal di waat maanaam prêter kon serment waaw kon daa war a waat coo ak charte yi nga xam ne kon moom la ko liggéeyam sax waaw waaw procureur spécial bi ci boppam warul di xalaate wala muy yëngu mukk ni am taalibe wala koo xam ne da ngaa bokk ci benn atu diine wala kon fii laa bokk non la ma war a def daal mooy teg lépp ci njub rek éthique wàllu yoon di justice laas ne waa PDS ya nekk ca Thiès ke ñoom it nañu taxaw de Pape Moussa Diop ne Macky Sall ci boppam la sénégalais wóolootul juróom-ñetti weer ginnaaw ba mu faloo déet waay akay ah parce que yow la mu diggee woon ba nii ñuy addoo ca campagne ba ba tey France daal di xidéen courant bi coupé suba ngoon ko dégg ba cëg di xuy-xuy xamaj-xamaj ah ana ca waxoon dund gu seer gi ana la ca Macky Sall waxoon laas yoonu yokkute gaa ngi dox de ah diwlin ba dee yokkate nañu ilaha illallah laa ilaha illallah ma gurtu diwlin bi nga xam ne junni la doon jar juróomi liitar ya waaw teg nañ ca téeméer ak juróom benn fukk léegi cinq mille huit cent lay jar laa ilaha illallah te yokk googee la xamul luy ndeem parce que barki déem boo ci laas ne may mama yeggali sénégalais seen bopp laa lay wax nii xam nañu xel ne jamono ji nga xam ne ci la Macky Sall kon di daal di yëngal di yëkkati ay tuuma di ko lal ci ndodd ñenn ñoo xam ne daal léewul xaw ma lan Macky Sall diggante 2000 ak 2012 jugee na fi ci ab locataire da doon ne nii mi dëju ci ab joo xam ni ay milliards yi milliards premier ministre am di Abdoul Mbaye mi ngi takk ci coowal Hissène Habré ba na ca rip Mouhamadou Mbodj bu forum civil ci la quotidien yéene kaay ne Abdoul Mbaye la mu war def mooy tekki ndomba tànkam génn ca tubaab ba génn na dee le populaire ne Bertrand Tulli la ci coowal Luc Nicolaï ma Tulli lii daal mooy lu njëkk ci suñu ëttu attekat bii ah, yow ab attekat ab juge bu taxaw xam le carrément ne dossier bii mënuma ci dara i maa la ko wax enquête yéene kaay ne ku la ëpp xaalis mën la c'est la du plus riche oh, suñu làmb ne moo taxit ay avocat lig Nicolas tey danañu jàkkaarloog taskatu xabaar yaa dem naa ca làmb ja suñu làmb ne Gaston Mbengue ma ngay bëgg a wane nag diisaayu loxoom bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar Gaston Mbengue ngi waajal ay combat yoo xam <laughs> ma ngay dox i Eumeu Sène Yékini mu yow moo Lac de Guiers numéro 2 laa ilaha illallah tey mu tàng dee sedd ba dikk na waaye sedd ba tey mu tàng réew mi quotidien ne nu jigéen kon mën a def ba téye góoram ci biir këram mu bañ a doxi jigéen ñaa nga caa ma sedd baa ngay dikk maa la ko wax soxna si ne sama jëkkër Angleterre la ne te décembre bi kon day ñëw vacances moo tax maa ngi dajale bagage yu ma am yëpp artillerie lourde ba la ñuy de maa la wax li xeet wu nekkoon di ko gis ci sedd bi yéene kaa gi ne trianke yi daal beetoo leen gënal njiit laay la waaye jànq ji ay mbirum tubaab moo leen gënal de ay nuisette ak ay la ilaha illallah réew mi quotidien ne xeetu cuuraay wu ne gars yi wutal nañ ko tur génn na am na cuuraay lu tudd face à face i am na bu tudd appartement deux cent vingt et un mu yow am na bu tudd premier jour am na bu tudd tous mm, mm, mm, kii am na bu tudd sama junni bi am na bu tudd takk ci rëf ak yeneen ak yeneen yooyu yana <laughs> alaaji bu ma la rusul woon rek comme que alaaji mën sorné wu fi dama naan la alaaji tëjal